la ngay wax dañ lay bàyyi ba nga yeggale bisimilahi rahmaani rahim ñu ngi leen di mat sawu di leen balu di leen nuyu kàddu gi nag dafay kàddu ndigal ku jóge ci ahfaadu Cheikh Abdoul Ahad ay sëtam ñu ne naa leen waxal ci seen tur kon ci seen ndigal laay yëkkate kàddu yi kon gannaaw nuyoo bi noo ngi siyaare suñu sang su baax sii ñu fi fekk ñu taaral jataay bi lool muy sëñ Abdul Xodóos ak Cheikh Bamba Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad ak sëriñ Baara Mbàkke moom Cheikh Sohaybu kon ci turu seen doom yooyu ñu ngi leen di siyaare bu baax yoonu murid nag lim baaxoo mooy booy tàmbali say wax nga tàmbalee ko ci ki yàlla teg ci kanamu yoon wi muy sëriñ Muntaxa Mbàkke moom ba Bachir ñu ngi koy siyaare ci turu njabootu kër Cheikh Abdoul Ahad gépp di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te am wér di siyaare itam ci turu sët yooyu ma wax njabootu Cheikh Abdoulahi Bakke borom dër bi buñ ko waxee rek ñoom ñëpp ñu ngi ci biir waaye rawatee na nag sëriñ son bi mi nga xam ne ay magam a ngi fi teew ak i rakkam waaye ci turu sët yooyu ñu ngi nuyu Cheikh son bu moomu baax di ko sant di ko gërëm ci teraanga ji rëy ji nga xam ne jagleel na ko seen maam jooju ñu bokk ci seen tur ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm yaa ngi ñu ko bokkal ñépp euh, di nuyu itam ci turu sët yi mboolem ñi ñu fi fekk ci taalibe yi ak bokk yi ak ñi fi ñëw depuis suba ba tey njaboot Sëñ Tuubaa gépp ñëw nañ fii ci biir mu nekk nag lu am solo ndax balaa may ñëw ci loolu bi ma ñëwee dafa mel ne ñi ma fi fekk te ñoom ñëpp ñu ñëw fi ci turu kër Cheikh Abdoul ci bis bi daanaka kenn desul bu ñëwee fekk fi sang si lim léegi te kër gu nekk dana am sa njaboot ga koo xam ne wala ñoo xam ne ñoo méngoo cëri jiite kër ga te seeni njaboot nekk jataay bi ka ca jiitu mooy sëriñ Amsatu Mbàkke mu Seex Abdul Ahad sëriñ mu yore baatu kër gi kon ñoom itam ci turu sëti Seex Abdul yi ñu ngi leen di jottali nuyoo sang yooyu ak seen cant ak seen ngërëm kon yëf yi jël sa guddal ndax guddi na ba noppi te day mel ne ñi fi ñëw ñëpp ñu doon lim seeni tur lim nañ ko ba pare kon li am solo te bokk ci lu mu gàtt ñu melal ko ci diggante ñaari ñooñu ci loolu lay jëm tuuti sëñ Abdul Ahad sëñ Abdoulaye magam la ñu bokk sëñ Touba waaye dafa nekkoon xaritam doon wëlëreem doon waxtandoo sëñ Abdou daf daan wax ne bu toogee ba nam mu xarab kanamu sëriñ Touba Daaru Rahman lay dem siyaare ji sëñ Abdoulaye loolu wax ju gudd ju xóot la am na bis mu dem fa ngir wax boobu ma wax ñetti doomi Sëriñ Tuubaa fekk nañ ko fa te kenn ku ne ci ñoom loolu la fa doon dox kon ñoom seeni diggante yi pas-pasa ko laloon fonkontee ko laloon te sëriñ songe bu sëriñ aboo dundaat nga loolu tey jii bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla na yàgg liñ fi wax yépp nag ci wàllu liggéey te sëñ Abdoulahi tax ci taxawaay bu mat sëkk joxe ci royukaay yu mat sëkk dafay mel ne joxoñ ñoon na waaye joxoñ bi du dog ba faaw ndax li ñu wax léegi fii diggante sëñ Cheikh Daaru Rahman ak sëñ Mamadou Habib ak seeni doom ku ne xam nañ ne taxawaay yooyu yàlla dogal na ña nga ca tënku ba léegi nii lii Gana Messere jàll léegi sëñ Abdou Lahad liggéey ku ko xam ak jaamu yàlla ak liggéeyal sëñ Touba moom nga ko xame li mu gor ci ay dëkk doon fa liggéeyal sëñ Touba li mu def ci lu baax li mu dimbale ci ay nit te lépp mu koy jëlee ci aw ñaxam kenn xamul nu mu toll bokk na ci rek bi mu ñëwee ci jataay bi doon jataay bi Sëñ Tuuba li njëkk a def mooy xool xebla yi wër Tuuba yàlla def mu woo Sëriñ Fallu Njaay xewar ndax moom booba sëriñ fàllu mooy bàyyi sëriñ Moustapha njaay xamoon na goru maam Ceerno Birahim yi fi mu yem ci xibla yi mu ne ko fi fi des day fu ma xam bornu ba mi ngi yem ci déeg bu ñuy wax beral daay geet mu ànd ak moom dem fa ak ñam tàndaloon ca ànd ba lépp ci liggéey bi rek laay ñëw modèle bi ci sëñ Abdou Lahad def bi mu xoolee foofu woo ku ñuy wax Ablaay Kan Soneva la doon liggéeyee ak ku ñuy wax Cerno Sow nattu loolu leen la fa des bañ ko ko waxee ne ko das na day trente cinq kilomètres carré booba gouvernement bi fi nekkoon muy Senghor moom la ca waxal ba ñu defas cër ku àll bu toll noonu mu gorloo ko yoon wépp faali daaru moxti fu sëñ tubaa def mbooloo yaa ngi woon ca gor ba at bu jot lu fa jóge bu ko génnee asaka ci liggéey sëñ tubaa bi la koy def ba 1985 jooyu booba daara yi fët fanweeri daara la ak ñaar gëcc gën a feebal am na vingt ci récolte loolu yomb a la muy joxit nag wu yéeme am na bis mu woo dong yi bañ ñëw mu ne leen dama fee bëgg a def day kërug téere yi alxuraan ak xasida yi ma bëgg nag sama ñaq jiitu ci ngeen fas fasaaleel ma ci la ngeen di def te fas naa ko ba noppi su sa jëm fii ma leen wax yàlla bu doom sax ca gerte ga at mooma juróom benn téeméeri million la am moom la woote war woote bu réy bi ñépp dégg na ko ni nangam diine laa am def naa ko ci daaray kaamil ji lu ma waaye jox ma defal la ko ci loolu yéeme am na ci dafa am dongaam bu ñuy wax Omar ci daara ji la nekkoon mi ngi dund yàlla dafa def bi mu jiyee gerte gi mu xaw a saxadi booba ñu ko encadré rek ñëw ci sëriñ bi ne ko gerte gi dafa saxa yaay xamuñ ca jiw wala xamuñ ca suuf sa la ñu bëggoon sërxal ci aw sëb lu yéeme la sëriñ bi moom boo dee boroomu xam-xam te nekk ci yu mel noonu ku bare woon kersa la mu mel ne nangul na ko ko waaye du nangu xolam ndax li yàlla def sëñ bi di du ca sàkk pexe moom tawxiid rek laay indiwaat ci foofu bi Ablaye Kane demee sëriñ bi woo Omar Lo ne ko Ablaye kan de ñëw na fi nee na sa gerte gi dafa saxadi neen dafa bëgg ñu sorxal ci aw sëb man nag tontuwuma ko dara waaye xam naa danañ la ko indil yow na yaa moom sab tool waaye sër xel de moom bu ma ci naree fekk bàyyi ko noonaa ma gënal Omar dégg liñ ko wax Ablaay Kan ñëw indiw sëb yu ñu sélectionné Omar loolu ne ko doo ko ji saab mu ko ji saab tool ko sëñ bi dégg yi bég ca lool at moomu tool boobu Omar am na ci ñaar téeméeri bërigo ak juróom fukk ci gerte Omar a ngi dund damay indi rek ñoom li ñoroon kenn xamul lan la waaye fi ñu ko jëme nag tam ci la ñoom ñii di seet sëñ sëriñ su baax soosu takku gi ñu taxaw man koo nekk benn di daan seen doole sàmm seen ay cër ndax fiñ bokk loolu kenn koo xam ci ñoom ci asbaad yooyu kenn yabul leen kenn du leen gis ci lu ñu leen wut a gis kenn du leen ca dégg kon bu ngeen xoolee doxinu yoon wi xool ñoom ñooñu nga xam ne suriyatun ba'daha min ba'din la kër gu ne sët ya fa nekk nañuy feeñale seen maam tënk ci lu baax sax ci jub fonk seen waajur yii loolu da ngay xam ne sëñ Tuubaa njabootam gi ak sëtam yi ak sëtaatam yi ba day tukki